Bienvenue sur Salam Vision. mbokku amateur yëpp ni ma koy waxee saa su nekk di nuyu sénégalais yi si diaspora bi yëpp jàpp sunu làmb ji ba mu mën di ala daaw me saa su nekk bépp sénégalais bu nekk si diaspora bi at ñu fi nekk képp kuy amateur xaadim ñu ngi lay nuyu ñëwaat rek di waxtaane waat làmb di waxtaane xew-xewu làmb waaw di ziar ñëpp di nuyu ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay. am wàcc combat mhm. waaw. papa préparer nañ ko préparé bu mucc ayib donc euh, mu nekk préparation boo xam ne vraiment ñu en sachant que ni euh, bii moo doon dernier combat am donc waajal ko waajal boo xam ne entraîné ci entraîné bu wóor euh, xam ni papa vraiment il a fait une carrière de vingt sept combats am vingt et un victoires ak six défaites buñ ci boolee bu démb ba. donc voilà c'est une carrière énorme mu dem ba toll ci war a bàyyi bëre ah di waajal combat. ñenn ci ñun ñi ci responsable xamoon nañ ni bii mooy komba bu mujj bu Papa donc doon ci yéene nag mu terminer at at victoire terminer en beauté vraiment ci carrière bu riche bi mu am donc nag ñu waajal ko ci lépp loo xam ne moom la ñuy waajalee mbër moom tamit mu nangu vraiment joxe boppam liggéey ba ca war. mun naa wax ni tey à leur où je vous parle amuñu dara luñ koy reproché ci côté entraitement ci préparation ci bëgg bës bi ci waajal ko ci nu mu demee ah yàlla nag mooy may ndam vraiment waajal nañ ko ànd ak moom gunge ko voilà dem yàlla xañ ko ndam te tant plus que amoon nañ fa combat yu bëri vraiment sunu boo yëpp daan di profité di leen félicité ñoom jum de di félicité ñoom Petit Lo vraiment di félicité ñëpp ñi nga xam ne tey ñoom góoreel ñëpp ñu ngi leen di félicité vraiment ñu nekk ay xale yoo xam ne tey mën naa wax ni ñoo ñooy avenir parcelle parce que comme li ma la wax rek ku bëri bëre 26 vingt 27 combats am 21 victoires 6 défaites t'as fait une carrière énorme donc nag léegi nag liñ ci li ci tegu rek mooy félicité Siteu félicité ko encouragé ko ñaanal ko yàlla ndam di jik ko parce que làmb moom sa waay nii la demee ñun moom bu ñuy préparer at mbër dañ ciy nekk on fait face voilà mais bu jeexee jeex na di ko ñaanal yàlla vraiment euh, ndam li jik ko vraiment li mu séentu ci làmb yëpp yàlla may ko ko ndax wax dëgg yàlla euh, champion la mbër la te vraiment Sénégal bëgg nañ ko te wax dëgg yàlla tey boo gisee ñun ñu naw Siteu mooy vraiment bàyyiwul ñi muy àndal bàyyiwul ay waa quartier te heure bu xew-xew yu mag amee lu mel ni ay inondation yooyu gis nañ vraiment mu wàcc terrain bi jël alalam di ko ci def loolu loolu loolu vraiment c'est des gestes nobles yoo xam dañ koy saluer vraiment di ko féliciter encore une fois di ko ñaanal yàlla ndam li jikko ko est-ce ñun ñëpp laa la wax à l'unanimité confiance bu mat sëkk la ñu indi hmm. gëm-gëm ni papa day daan Siteu ci bu wóor la ñu nekk làmb nag ñett la VDN la euh, victoire défaite match nul loolu ngay indaale ci làmb te tey wax dëgg yàlla papa lépp lu mu waroon indi ci làmb pour am ndam indi na ko démb nag yàlla moo dogal Siteu mu doon bësam yàlla may ko ci ndam et ñu koy félicité di ko ñaanal yàlla tamit yoonu làmbam gën a neex parce que tey tey papa bu daanoon sax day bàyyi tey bu daanoon Siteu day bàyyi kon bu daanoo tamit day bàyyi donc loolu yóbbaale woon nañ ko làmb ja mais mais ñun ñun suñu objectif moo doon vraiment euh, préparer Papa Sow vraiment yàlla may ko ndam mu tëjee at victoire parce que tey euh, wax dëgg yàlla lu ñu mën a wax tey il a su faire quelque chose boo xam ne tey euh, xale yu bëri mun nañ ci dund xale yu bëri mun nañ ci progresser muy jàmbaaru Wrestling Academy et moo am ay xale yu fa nekk nekk ay prix produit concentré wu si ñoom vraiment jàppale leen gunge leen comme moom niñ ko gungee ci carrière am def naa mu nekk objectif bu noble di ko ñaanal yàlla objectif yooyu yëpp vraiment mu atteindre ko. waa xam nga nit moom boo amee ay responsabilité am ay njaboot am doom say doom màgg ah ba commencé tolloog yow vraiment nga am njaboot vraiment parce que papa ku ko xam avant muy am licence am na soxna. tey ñu bëri loolu lañu xamul papa avant muy bëre avant muy am lissance ci làmb am na soxna donc lii tey mu dem nag ba ay doomam màgg vraiment di ko ñaan di ko ñaan ay am di jàmbam di ko ñaan moom tamit yàlla def tamit papa tey xëy na am na loo xam ne ku ko wax eh, da ngay mel ni kuy xajamal victoire u Siteu te vraiment il a fait une une très belle victoire parce que tey papa ku ko xam tey xam na ni Ah, du tricher du du daw di làqatu mais vraiment da nga nit da ngay toll foo xam ne ah, athlète surtout athlète boo amee presque vingt ans de carrière déjà sa muscle yeeg sa yenn articulation yeeg yenn blessures yi nga xam ne tey moo doon nelaw sa yaram day yeewu tey ah, ku xool papa démb ni mu bëree ku xool bu baax xam bu baax xool ni loxo droitam bi sax fonctionné wul parce que dafa am benn problème boo xam ne problème mu neer la boo xam ne moo nekk ci loxo bi euh, ci dernière semaine préparation yëpp ñu ngi ko doon éviter loo vraiment loxo boobu fonctionné mais te loolu c'est pas le moment ñu koy wax parce que euh, bu daanoon tamit duñ ko wax du dëgg kon nag yooyu noonu yëpp c'est un tout boo xam ne tey euh, préparé woon nañ ko vraiment xam ni vraiment ñun suñu souhait rek moo doon mu terminer vraiment en beauté vraiment encore une fois di féliciter Siteu c'est un très grand lutteur vraiment amuñu lu ñuy wax quoi lu dul lu dul ñaanal ko yàlla yàlla teg loxo ci carrière ndax vraiment champion la day neexal làmb te day mobiliser. mais Balla am na ñu voir absolument rien à parce que euh, ñun. nekkuñu woon nekkuñu woon en pression parce que on était très zen on était très calme papa xam na li mu ko war a def bo supporter dëgg la am na solo ci nit mais euh, démb supporter jéewul ci làmb ji papa amul benn pression bëre na bëre na stratégie li mu doon tànte doxul si te xaar na ko teylu ko préparé moom tamit préparation bu am solo ñëw yàlla may ko ndam ci kaw papa. waa préparé wu dañoo am astuce yu bëri yuñ préparé woon donc benn bi moo doon euh, mu mu mu fexe euh, juumloo Siteu ci par rapport ak expérience bi mu am ñaareel bi mooy euh, bañ a songu songu hasard ñetteel bi mooy mu bañ a ma ci kaw Siteu tey euh, ku gis démb papa ni mu abordé combat bi abordé na ko ak sérénité parce que tey ku supporter jaaxal wala wala si am pression wu supporter bu arbitre sifflé rek da def lu kenn xamul mais démb jël na temps liir komba bi liir combat bi jël temps xool Siteu lan la indi comme moo doon mooy xale xool ko lan la indi ba Siteu tamit euh, xaaree xaar euh, vraiment déglu grand bi grand bi ñëwul Siteu jéem na def jéego sànni ku parce que ku boobu Siteu sànni mooy juste pour papa jóg ba Siteu sànnee ku papa yuur génnaat Siteu rëpp ba mu jógaatee vraiment mu daw jël ko jël tànk bi ba ko jëlee yàgg ci tànk bi nag waaw waaw da cee xaru ci tànk bi dafa fa yàgg ah yàgg bi mu fa yàgg nag te Siteu at relongé moo ko permettre vraiment mu mën a jargandiku ba mën ko busulu donc mu doon une très belle victoire de Siteu ñu koy féliciter di ko ñaanal yàlla yàlla jàpp ci carrière ndax vraiment ku mën a ku mën a euh, jox visibilité làmb la waaw. que dafa mhm. soo loolu moo doon idéal tey bu ñëwoon tey euh, pare pour combat pour xeex mooy comme li ma la wax rek am na loo xam ne kenn du ko wax après victoire day mel ni da ngay yàq victoire jàmbur. Ah, waaw moom laa lay wax boo xoolee démb ku xool làmb ji démb xam ne loxo droitu Papa bi doxul. am na lu tax nag du fii lañ koy waxee parce que bëgguñu yàq victoire Cité parce que il a eu une très belle victoire voilà il a il a eu belle victoire vraiment wax ko bëri ko ci ngor bëri ko ci fulla ñëw heure bu mu war a ñëw làmb ji amul benn débordement vraiment ñu leen ci félicité parce que tamit euh, ñun moom dañuy analyser en dor fi ñu far dañuy analyser bokk ci làmb di xalaat vraiment tey ba ñu ñun li may wax rek bu ñuy bëreeg yow. lépp li nga xam ne tey moom la adversaire di def dañ koy def dañ lay déstabiliser dañ lay pousse pour nga énerver dañ lay pousse pour yàq sa combat mais bu jeexee jeex na bu jeexee nag il faut être euh, sportif vraiment nangu li xew nangu li yàlla dogal nangu ni sa mbër waaj na yàlla moo dogul parce que làmb moom kenn mënul kenn ku yàlla dimbali rek moo fi nekk démb nag waaw yàlla Siteu la jox ndam dañ koy féliciter di ko encourager vraiment di wax ni ah mention spéciale à Siteu léegi nag li ci des mooy ñun ñooy boole lu ñu neex at lu ñu metti muñ sportivement nangu ni ah suñu mbër daanu na tey daanu na parce que voilà lii moo tax wala lee moo tax noonoo non bëre ci bëre la ñu bëre Siteu daan ko jël bu leer naññ amuñu luñ ciy polémiquer di ko ñaanal yàlla Papa Sow encore encore man duma ko sax encouragé dama koy félicité man Papa Sow du ko encouragé dama koy féliciter ndax son grandeur son sa discipline vraiment ah boole gi mu am la kon papa am na ndam ci lu baree bari bari mënoon na jógee écurie Fass comme ni ko mbër yëpp defee dem toog tal carrière am ba pare carrière am dem tali leneen mais defu ko taxawal na loo xam ne tey euh, parcelle ñu bari mun na créer sax ay roi des arènes mun na créer leneen ak leneen on ne jamais kon il un grandeur te c'est quelqu'un que je respecte c'est quelqu'un que j'admire vraiment encore une fois di ko féliciter di ko wax ni gàcce ngaalaama parce que ku am sawaay 27 combats ci làmb génneel ma ay mbër yi am 27 combats am victoire 21 victoire 6 défaites kon palmarès bu extraordinaire la kon man jë moo mu koy féliciter encore une fois di féliciter Mansour Ba di féliciter Mansour mu nekk xale xale bu yàlla yàlla ubbi xelam ci lu baax di dox lu baax di ko def vraiment di ko félicité di félicité organisation bi yëpp di félicité encore CNG gis changement yi ñu def ci làmb euh, vraiment ku ko déggoon dès le début euh, di nga xaw a kii mais vraiment gis nañ ni bu méthode bi dëgëree euh, huilé vraiment lamb mun na ci jaaree avancé di félicité encore une fois notre cher président Père Ba wax dëgg yàlla il a ménagé aucun effort vraiment euh, njabootam taawam liggéeyam lépp mu jël ko def ko ci xale yi vraiment pour xale yi am une très bonne réussite mention spéciale à Père Ba di nuyu aussi euh, staffu Jàmbaar Wrestling Academy yëpp di di nuyu ñëpp wax dëgg yàlla euh, macha allah lay wax macha allah macha allah et puis voilà ñaanal encore une fois Siteu ndam li jikko jërëjëf Xaadim merci Bienvenue sur Salam Vision.